buy ni de buntu bloc te li ci gëna a doy waar suñu fi benn autorité bu taxaw hôpital baa ngi nii di suuf waaw mooy ni sama yoon man hôpital bi moma ñor hôpital ngi ni de ni maternité ngi ni ni sa femme yi daw ken mënu fi nek muy ni ci état bi la hôpital bi nek gisunu ben autorité ana wa administration hôpital bi ne maternité la gis ngeen daño rawalé maladie gis té taxul ne personnel baa ngi di dund lu metti li ak population personnel bi rek mo fi nek personnel soignant bi di dund lu metti li Libir fekku leen ci maternité la gis ñii maternité la lii lii benn maternité la